kontaan ci formation bi parce que formation bi dafa am benn solo bi nga xam ne man mënumaa wax man kontaan bi nekk ci man xoola fi ma jógee ba fii kon dama kontaan boo xamatuma sax lan laay wax waaw parce que am président bu mel nii yombul waaw yàgg nañu li ñuy gis ay président waaye président bu mel nii comme suñu président bii maa ngi ñaani yàlla yal yàlla jàppale président bi dem ci kanam formation bi moom am na njëriñ parce que ñun tey balaa ñuy dem di jënd saabu ci wala jënd eau de Javel ci bitik mun nañ ko defaree suñu bopp ñi jaayante ñi am suñu bénéfice ku nekk bu ñubee moom tam mu góorgóorlu parce que nit mun na jógee fu mu jógee ñëw dimbal la formation ba pare nga toog loolu moomu neexul dañuy ñaan yàlla continuer ci formation bi lu ñu war a ñaan ci formation bi yàlla formation yi gën a yokk formation yi bëri waaw loolu lañu bëgg. sa lu ma jàngat si formation kontaan naa trop soo dëggee lu xam ma ne la kontaan naa parce que dama daan dëgg autochefet duñ koy defee mais man xaw ma nu ñuy defee autochefet. Mhm. mu ñu assister defar autochefet bi ak savon bi man couturier laa. si mhm. wàllu ñaw laay yëngatu. Mhm. parce que dama bëgg luy avancer suñu réew. tey su ma mënee lii tey mun naa dem sama koñ mu koy liggéey ak sama famille parce que am naa GIE am naa GIE mais tey sëgam jàng naa fii si lii su demee sama koñ damay oo sama famille ma ne leen kaale ñu def benn produit nga xam ne ñu ñoo koy def defar suñu bopp du ñu jël yoo xamante ñu ñuy indi extérieur di ñu di ko liggéeyee ñu koy ñuy defar produit koo xamante ne ñu ñoo koy liggéeyee suñu bopp balaa ñuy dem si boutique bi di jënd fekk ñu mën nañ suñu bopp ñu koy jaay entre ñun ñun neen juróom fan yi jàngante nañ si su lu bëri tey boo ma joxoon tey nga ne ma defaral ma produit dinaa ko defar parce que xam naa si lu bëri xam naa si muy kontaan nañ trop si formation bi.